wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamaaleykum ñuy sàkku ñëpp ñu déglu ñu nekk ci biti ci biti nañ déglu noonu ñuy sàkku ñu déglu nuyu mbokk yi ci nuyoo bi ñu islaam sant muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di am kontante bu baax a baax ci woote bi nga xamante ni woote nañ ko muy teral sunu rakk yi nga xamante ni ñoo mokkal alxuraan ci sunu barab bi nga xamante ni amul benn barab bu ko gën a kawe ci ñun ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci wuy gi nga xam ne wuy si ngeen ko di kàddu gi ci tuuru ñi nga xamante ni ñoo mos a jaar ci daara ji xëy na dañ ma tànn rek ndax mbir moom su ko mbooloo bokkee faaw am ku ko wax waaye du dañ cee dàq wax wala ñu jiitu fii wala ñu gën a xam li xew ci daara ji kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sunu mudir yi nga xamante ni ñoo fi nekk waaye dañ koy njëkkee ca ña jiitu woon muy sëñ Asmor ja ba wàcc ci sëriñ Seexuna ak Seex Muhammadul Basiir Saaxo mi nga xamante ni ñoo fi nekk tey ñoom ñépp ñu ngi leen di jottalil ak cant ci turu ñi jaaroon ci daara ji ndax ñoom ñi yore woon liggéey bi di ko teete ba mu agsi fii liggéey bi rafet na waaye ñi ni njëkkee mënuñoo sant ñi nga xamante ni ñoo yor daara bi di bàyyi ñi nga xamante ni it ñoom ñoo yor wàllu liggéeyu daara ji muy ñu mel nii sëñ Abdoulahi Dia ak Cheikh Moustapha ak Soxna Manta kon ñi nga xamante ni ñoo jaar ci daara ji ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci seen liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom ngeen amee ci daara ji sant gi nag bu ñu koy def li tax da da ngeen ñoo taxawee foo xamante ni wax dëgg jàpp nañ ne lii ñun ñoo ko waroon taxawee te xëy na mate mënuñu ko kon bu borom bi subhaanahu wa dogalee ci ak mbaaxam defal tawfiq Cheikh Abdoulahi Dia ba lu baree bari mu taxaw ko ci daara ji te loolu yi ñun la waroon donte ñi nga xamante ni jaar nañ ci daara ji nañ ko taxawee bu demee ba borom bi dogal nag tey mu taxawee kon loolu ñoo ko ci sant kon kàddu gi du yàgg kàddu sant lay doon ak soññee euh, li nga xamante ni nag nee na ci xel yi ñu bari bañ àggee moo ko ngir war ma ngir ma war koo àggee ci waajuru xale yi toog ak xale yi nga xamante ni ñoo fi toog ku ne xam na ne daara dafa naqare yor te barab bi nga xamante ni fi lañ jaar doon fi liggéey di fi jàng jànge fi alquran kon ñun war nañu wëlbatiku waat gën cee jàpp comme nañ ci daan jàppee ndax maa ngi fàttali ne conférence bii nii mbooleem lu ci daan dem ci poosu xale yi jaar ci daara ji ci la daan génne bi demee ba affaire yi xaw a mel nii nag ci lañ xaw a nu mu waaye lool yi maa ngi xamal waajur yépp ne. ci ñi daar ci daar ji loolu bëgg nañ ko continuer incha allah ndax dërëb boobu ciy def buñ bàyyee suñu Abdoulahi Dia muy def moom mooy fayeeku waaye xale yii di jàng war nañ leen a wutal toolu ba loolu loo xam dama koy proposé ci ña ñaari mudir yi muy sëñ Seexuna sëñ Basiiru ñu àggee ko ci kaw bu ko defee ñu xam ne loolu daa doon loo xam ne jàpp naa ne mënut ñàkk ci liggéey bi ndax daara internat amul tool booy bay amul dara looy def te dërëm bi ñu ciy joxe jàpp naa ne loola dana barkeelal sax alxuraan kon maa ngi sàkku donte bu doon weer la sax waajur wu nekk joxe li nga xam ne mooy ab téeméeri dërëm ñu koy tàbbal ci daara ji donte ab suñu ablaay ngi def loola dana barkeelal alxu xale yi seen alxuraan ñun ñi ci jaaroon it ñu continuer sunu liggéey bi ñu daan def fexe ba sunu yi daayira ñu gën koo taxawal. di ko gën a jàppee ci bis bi it loolu it yaakaar naa ne mbir la moo xamante ni dana gën a barkeelal alxuraan ji nga xamante ni moom lañu fi jëlee ndax bu njëkkoon mag ñi bu ñu daan jàng dañ daan yor toolu ba wala nga jàng ba pare boo wàccee dem dem tool liggéey indil sëñ bi léegi nag loola comme que amut jàpp naa ci nii lañ mën a amee occasion pour def loola mooy waajur wu nekk weer wu dee donte ab téeméer dërëm la du ak fay lépp suñu ab laaj moo ko yor. te yaakaar naa doon lu compliqué loo xamante ni it mën nañ ci am xel yaar lu mën a nekk la bu ko defee ñun ñi nga xamante ni néewatuñ ci daara ji maanaam ñoo ngi ci yeneen daara di jàngale te fi lañ génnee ñu nit sunaw ñàq di gën a tàbbi ci daara ji loolu yaakaar naa bu ñu ko defee dana doon mbir moo xamante ni lu am solo lay doon jërëjëf kon ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala doon leen defal tawfeex mbokk yëpp suñu borom nangu ñu liggéey incha allah waaleykum euh, jërëjëf sëriñ euh, Mokhtar wa سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي لندي نيو di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñi ñaan ñu dégloo ñu dégloo nañ dégloo ndànk ñu ngi leen di ñaan ñu ànd ak dégloo di tàmbali nag nuyoo bi di ko di ko jagleel walla di ci jiital sunu xalifa sunu sëriñ cheikh Mouhamadinil Muntaqa Mbàkke xafizahu llahu wa raah waaye di nuyu suñu sëriñ sëriñ Abo Mbàkke xalifa sëriñ Modou Mamoun Darou di nuyu njaboot gi nga xam ne ñoom ñëpp yàlla def na seen i ndaw wala ñoom ci seen seen jëmmi bopp ñu ci bari yàlla def na ñu ngi ci jataay bi di ndokkeel nag waa daara ji di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp bi tàmbale ko ci Cheikh Bachiru Sakho ak Cheikh Serigne na Mbacké waaye di ndokkeelaal yi itam ñi leen di jàppale ñoom ñëpp ci liggéey bi ci kenn ku nekk wàll woom ca féete Euh, kàddu gi nag xam naa ne xaw na noo bett ndax nun danoo wuy si woon rek ci woote bi nga xam ne gëm na nu ne képp ku yàlla dimbali ba nga teewe ko sunu boroom tabaraka wa taala mën naa am lu mu la fàggul ci bëccëgu tey bii ndax woote alquran la waaye nag ñu di ko defee ci buqaa mubaaraka ñu am ci yaakaar lool ñi ko taxawee itam saytu ko yàlla def ñuy ñu yàlla baaxal kon ñu ngi leen di ndokkeelaat bu baax ci liggéey bi di rafetlu itam taxawaay bi noonu lañuy ñuy nuyee itam way jur yi dongo yi nga xam ne ñoom itam seen wàll lu ci am solo la ndax euh, ku ne xam ne ne jàng jàngale moom dafa am ay kenn yoo xam ne ci la taxaw te benn bu ca manqué rek mën ngaa wax ne njàng ma walla njàngale ma mën naa sooxe te loola dara jiituwu ci nga am ay jàngalekat yoo xam ne yu xereñ lañ te mën lañuy def waaye lu ñu xereñ xereñ te man li ñuy def itam bu ñu gisul woon dongo bu ñu jàngal itam seen yéene mën naa bañ a àgg bokk na ca keno yi itam nag mooy lépp loo xam ne day yéwénal liggéey bi nga xam ne moom la jàngalekat yi taxawee ci daara ji ngir lañu ñu def ci dongo yi mu mën a àgg ca nañ ko mébéte loola itam faw am yu koy sottal loola mooy jaanib maddi bi nga xam ne mënta ñàkk ngir gunge daara ji kon danañ leen ndokkeel yéen waajur yi waaye ndokkeel ndongo daara yi ci njàng mu rafet mi nga xam ne ba ñu xëyee ci suba ba léegi ñu ngi ko fiy dégg te daanaka ko ku tàmbali rek doo bëgg sax mu bàyyi bu loolu jàllee nag danañu leen ndokkeel ndokkeel sëriñu daara yi rawatina ci biir tuuba ak li ko wër ci sagal gi nga xam ne yàgg nañ koo sagal sunu réew mii di senegal te yàlla jaarale ko ci seeni jëmm mu jural senegal ay xeeti ndam yoo xam ne yu fasantiku la te wuute te benn bu ci nekk mat na sëkk ndam ñeel ahlul quran waaye mat na sëkk ndam ñeel senegal loola nag mënuñoo ñàkk a yeesalaat suñu cant ak suñu ngërëm ci kull koo xam ne rek yàlla sedd na la téeréem bii nga xam ne moom la wax ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun yàlla moom moo wàcceel boppam alquran waaye moo koy sàmmal boppam ci biir càmm googu nag ku ne xam na ni mooy tànnal boppam ñi mu ñi nga xam ne ci lay sukkandiku ngir mën a sàmm téere kon danañ leen sargal bu baax a baax ndokkeel leen jaajëfal leen su ko defee li nga xam ne bëgg nañ koo mottalee suñu wax mooy ñaanal yàlla ñi nga xam ne liggéey bi gannaaw yàlla bu agsee fii jàpp nañ ci ba ñëpp seede ko ñooñu nag xam ngeen ne ku ne xam ne ne alxaaji Abdoulaye Dia di DG Sénico ku ne xam na ni kenn jiituwu ko ci waaye itam magam sëñ safaa kadalika moom itamit bay na ci waaram wu rëy rëy rëy noonu nga xam ne nag noonu lañ ko taxawee fii ak ñëpp ñi leen ciy jàppale rawatina ku mel ne ñoom soxna Anta ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi di saytu liggéeyu alquran bi di ko tappatoo di fexe ba dara dara loo xam ne lii lu koy doxal la du manqué ñooñu ñëpp itam amee nañ leen njukkal waaye ameel nañ leen ay ñaan ñu ngi leen di ñaanal yàlla mi am seen fay yàlla na yàlla fay leen te baril seen i kem ak képp koo xam ne yaa ngi jëf ci téere yàlla bi ak foo ko mën ci jëfe jërëjëf kon li may daaneele rek mooy di wax ni ñu ngi ñaanal ndongo yi nga xam ne tey jii wax dëgg yàlla ñoom la yàlla cërale téere bi ñu wattu ko te seenub lim àgg ci ñaar fukk ak juróom yal na yàlla barkeel li nekk ci seen dënn yal nañ ko jariñoo ñoog seen i wayjur yal nañ ko jariñoo waaye ñoog seenum réew yomb na yàlla yal na leen ko yàlla defal di leen jaajëfal bu baax nag di leen félicité waat ci turu comme noonu ñu ko waxe grand prix Sénico ndax man ak Serigne Talla Diop ñoo waroon a ànd mi nga xam ne moom mooy mu nasiq bi waaye yàlla def démb lu mel nii dañ koo yendoo fële ca daarul quranul karim sëriñ Omar Dia bi nekk Dakar ci dufa bi nga xam ne moom mooy première année bi ñu terminé doon joxe dongo yi seeni i nu mu lijaasa doon leen jox itam seeni i seen not yi nga xam ne moom lañu doon moom moom mooy mandargaal njeexitu at mi ci wàllu njàng jàngale te yàlla def ci itam alhamdulilah rabbil alamina loo xam ne euh, lu rëy rëy la ñu yendu woon kook ñoom sëñ Moustapha kon ñu ngi wax ci turu kilifa yooyu nga xam ne du ñàkk moos mën na am dana am balaa jataay bee tas lenn ci ñoom ñu fi rot si mën a motel li nga xam ne nii tàmbali nañ ko waaye waxaale itam ci turu ittihaad ci turu sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo ko jiite ak sëriñ Mansour Samb mi nga xam ne mooy secretaire général bi ak sëñ taala Diop mi nekk seen trésorier waaye waxaale ci turu mbooleem jàngalekatu alquran yi jëf ju rëy ji nga xam ne def ngeen ko yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla gën a barkeel daara ji at mu ñëw rek gàcceel ma ko jiitu woon ah. waa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada ñu ngi sant suñ borom subhaanahu wa moom mi ñu bind melal ñu kàttanal ñu te kenn fekk ko ci di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi tey ñaan suñu borom yàlla bu mu dañ di dott leeram ci Maulana Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ak mboolem gaa baax yépp ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp jox wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen jotal nuyoo inspection de l'éducation et de la formation bu Mbàkke ak nuyoo inspection d'académie bu Diourbel ak nuyoo ministère de l'éducation nationale euh, di fésal mbégte ci teew ci jataay bi ndax jataayu alxuraanul karim la euh, di jataayu diine di jataay buñ barkeel kon kon ku yàlla wërsëgal nga teew fa rek euh, cant la waaye bëggoon fàttali rek euh, solo sum am ak tuuti évolution yu am ci wàllu njàngum alxuraan ci réewum Sénégal maanaam politique ci wàllu njàngurum alxuraan ndax ñun ñëpp xam nañ ni bu jëkkoon alxuraan ak état rapport maanaam jëflante giñ amoon mooy jëflante gu ñagas loolu mooy lu jiitu indépendance di am ba tuuti sax bi indépendance ñëwee daara ak nguuru état daanaka ci xaw a jàmmaar loo lañ def am ci ñu sëriñ daara ak boroomi daara yu ñuy bundu ñoom it ñu taxaw samp dëgëral seen tànk ngir wattu alxuraan ñu dem diir mu mel ni ak njàmbur moo dox diggante état ak daara maanaam daara taxaw fee di doxal mbiram kenn bunduxaalu ko bunduxataalu ko naam waaye kenn dimbaliwu ko ci dara bàyyi ko boppam état bi tam nekk na la di doxal mbiram daanaka ñuy xoolante daal kenn ku nekk jàpp sa njàmbur ci sa morom looloot ñaari diggante yooyu yëpp benn du ci diggante bu jub ndax nguur comme dañ koo dénk yëfu askan amul ci bëggi-bëggi askan yi ak yitteem bu mu ci war a noonu waaye nguur it comme dañ koo dénk yëfi askan amul ci bëggi-bëggi askan boo xam ne da caa war a jàpp ak njàmburam ñu dem tuuti ba 2004 fala liñ mën a wax révolution amee fekk président Abdoulaye Wade nekk fii ci lañ voté loi bu mayee ñu jàngale diine ci école yi école yi tubaab yi kon ñu jëli diine mi waru woon a dugg ci école yi ñu dugal ko fa waaye tamit état jël loxoom ni léegi dama bëggatuma jàmp sama njàmbur ci daara dama bëgg a sama loxo ci daara léegi nag anam gëm cay duggee wax am na ci ay weccoo xalaat yu bari am na ci ci sëñ daara yi def ay association def ay fédération ba moo jur ñu am accord cadre boo xamante ni mooy texte bi définir di organiser jëflante gi ci anam gu mu war a doon muy accord bu dox diggante sëñ daara yi ak état du Sénégal dem nañ ba def sax projet de loi boo xamante ni moo war a wax nan la daara doxe ci biir réew mi te loolu lépp nag ay waxtaan lal ko ba waroon koo yóbbu assemblée nationale waaye ay wuute ciy gis-gis tax ñu ajandi ko ndax lu jëm ci daara lum ci doon waxtaan la war a doon ba dëppoo ci anamuk defar kon ñu gis ni état ci fi nekk nii dem na ba nangul boppam ni daaray alxuraan dafa bokk ci ponk yu ëpp solo ci jàng ak yar ci réew mi dem ba gis ni nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp bu dara xewul sax nit ñi ñoo riir jëm ci alxuraanul karim kon moom amatul sax pexe ci lu dul topp riir moom fekk ci leen seen bëgg-bëgg boobu moo tax léegi projet bu muy négocier di ko ci boole paquet bi am doon doxal njàng meeg njàngale mi financement bu ci am ñu ngi ci doon bàyyi xel daara am na beneen projet bu amaat bu tudd PIPA DHS ci daara yi préscolaire biñ ko waxee am na ñu bëri ñu ci amoon ay gis-gis yi ak i ngànt waaye ma gis ni lu am solo la ndax daara juróomi at la fa xale bi dem waaye bari na ñoo xamante ni lu jiitu lool dañ daan yóbbu rek ci. xale bi ci fukki mais dañ dem ba créer ay daara préscolaire yoo xamante ne xale bi bu amee ñaari at ñetti at rek dafay mën a dem ñu tàmbali di ko nampatal ci diine di ko nampatal ci alxuraan di ko nampatal ci mu bëgg ko ba buy dem daara bu demee ni xale daan def boo ko yóbboo daara muy xataraayu ndax xamagul daara waajal nañ ko ci ndànk-ndànk ba miin environnement daara ba buy dugg di dal day fekk moom continuité lay doon ci moom loolu kon muy idée bu am solo boo xamante ni ñu ngi koy commencé di di développé ba bi ci mujj mooy bi mu dalalee sëriñu daara yi mooy woote bu yaatu boobu mu woote woon dakaar président de la république bi mu amet ay wax am na ci waaye man li ma wax rek mooy euh, koo xamante ni yàlla dogal na ndax ki seet wàllu yi moo sédd nguur yàlla ci boppam moo jël nitu yàlla bi jox ko kartan waaye buurub àddunaat yàlla ko sedd comme moo jiite buñ ko bu wootee ni dama bëgg a toog ak ñooñu daara te ñeneen yi buñ bëggee toog ak ñoom ñooy bind audience pour ñaan toog ak moom defe naa loolu teraanga la sax ci daara ñoom donte daara moom ku toog ak moom yaa ciy gële ak dolleef biñ demee wuy ji wuy bu am solo mu am fa ay dige dige yooyu tàmbali na am yuñ ciy teg ndax bi bi Sénégal di Sénégal ba tey mosuñoo lancé ni dañuy jël ay sëñ daara fonction publique loolu mu ngi dool a am ren muy loo xamante ni luñ mën a rafetlu la ci ab tàmbali ci ni état mu ngi jéem a gestu daara muy lu war a gën a dëgëral gën koo samp gën koo suuxat ndax nag ni école publique amee ki bëgg a jàng jël doomam yóbbu fa du fay dara état jël lépp en charge noonu la war a amee ay daara yoo xamante ni tamit état mooy warlu lépp ba ki néew doole bëgg doomam jàng alxuraan it état wuutu ko ci loola. loolu nag ñëpp war nañ ci liggéey ñëpp xalaat ci te nag di ci xalaat xalaatu rafet njortu ak defar ba ñëpp liñ ci bëgg ñu am ko ci gën gee rafeti anam. loolu bëggoon naa profiter ci occasion bi eh, jàllale ko li ci topp mooy sant sëñ daara yi nekkoon ci daara ji di jàngal xale yi alxuraan ndax man jàngalekat laa xam naa jàng ak jàngale ku jàngal ab xale bañ ni tey ma ngay tari kooku daj na loo xamante ni moom rek moo ko xam ak suñu borom subxanahu wa taala waaye ndokk ba moom séentuwul ak payam sax ci nit ndax sëriñub daara kenn mënu koo fay. waaye sunu borom mi moom alxuraan te ni mooy sàmm alxuraan te ku ko ca nekkal mu gënal la ci kaneen ku dul kooka moo am seen fay yàlla leen fay sunu doom yi mokkal tey tam te doon tari fii ñu wax leen ni am ngeen li gën yàlla defal na leen li gën ci diggante asamaan ak suuf muy lii kàddug yàlla ñu def ko seenub dënn na ko xam bu baax te sàmm ko bu baax te alxuraan diñ def seen dënn ngeen wormaale ko foo leen nekk yéen it di am comportement buy dëggal alxuraan gi nekk seen dënn ci seeni kàddu ci seeni wax ak seen jëf yépp lu am solo la ndax jàngal nit alxuraan mu mokkal mbir la waaye léeg-léeg mu génn dem ci yeneeni loxo balam mokkaloon bu jëfee ñu ni monte de mokkal na alxuraan loolu nag koo ko dégg rek alxuraan ga jeexit ga des na di tëje ci ni sun yaakaar li ci desakus néew ci àdduna bi mooy yar xale yi ci alxuraanul karim ndax ñun ñëpp gis nañ ni te dem nañ ba état senegal xam ko ni juróomi priorité yi mu am ci ministère de l'éducation juróomeeri priorité bi bi ci ëpp solo mooy ni dañoo gis ni wàllu valeur wàllu jikko dañ cee des ginnaaw sunum njàng ak njàngale dañuy jàng ba noppi am jafe-jafe jikko koo dénk mu def ca lu la neexul kenn wóolootul sa morom ci sa biir kër dañuy def ay giriyage ba suñ kër yi ay prison la bëgg a doon ndax kenn wóoluwul sa morom ca la ci sa biir kër kuy wax ñu ngi xool la muy wax ndax dëgg la am koy waxal ñu ngi xalaat ma ngi lay enregistré am déet nga xam ni jikko am nañ ci jafe-jafe ba tax ñu def ko priorité fexe ba nan lañuy ñuy defewaat jikko ak valeur ci ndaw ñi ndax mag ñi moom nañuy mel mel nañu ne ba noppi waaye gàttandu ndaw ñi def ci ñoom ay jikko yoo xamante ni ëllëg mooy tax réew mi niñ ci bëgg ñu am ko loolu priorité la ci éducation mais am nañ ci ak jaaxle gu wér ndax ñu ngi jéem mais est-ce que li ñuy jéem mu ngi am résultat ndax dangay ngay jéem ba kooku àgg université nga gis mu taal ab bibliothèque am kooku xam nga am na jafe-jafe bu ñu ci am wala nga jéem ba kooku doonu ministre nga dégg njombe mu rëy mu jóge ci moom kon am na jafe-jafe bu fi am kon ñiy jàng alxuraan nu fexe nu ñu leen koy jàngale ba donte dafa génn mokkal nga pare ci moom mu dem sax waaye ci diir bi mu fi nekk mu yóbbaale loo xam ne dootul deñ ci moom mokkal na waaye jëmbat nañ ci moom jikko ak melokaan yoo xamante ne fu mu dem loola dina témoigner alxuraan ji nekk ci dënnam kon daal man lueur d'espoir bi ma am ak yaakaar jiñ dese mooy fexe xale yépp bala ñoo jàng dara ñu jàng alxuraanul karim te buñ ko jàngee mokkal ga ñu téye mokkal ga tey jikko yi alxuraan xëy di jàngale tamit ñu fexe mu nekk seen xol tuur seeni cër di feeñ seeni bi ñu ngi santaat ñëpp di jégluwaat ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala wa sahbihi wa xadimi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp te di siyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii di yëkkati suñuy kàddu ci turu waajuru ndongo yi ndax xam ne lott naa lool ci jot li seen kàddu kàddu yi it kàddu cant rek lay doon bu njëkk bi mooy sant suñ borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moonu may ak njaboot ba njaboot gi mën a ñëw fii di jàng alxuraanu karim te xam ngeen doom kenn mënu ko may sa bopp yàlla moo koy maye yaa habu liman yasaau inaasan wa yaa habu liman yasaau sukuur aw yuzawwijuhum sukraanan wa inaas wa yaj'alu man yashaa'u hakiim innahu aliimun xadiir ku ko neex mu may la jigéen dong ku ko neex may la doom ju góor dong ku ko neex may ju góor doom ju jigéen ku ko neex sax mu defal nga yaradal doo am dara ndax moom moo xam moo sañ kon yàlla mi ñu may njaboot googu ñu ngi koy sant ci loolu subhaanahu wa taala di ñaan it bu nekk njaboot gu barkeel njabootu lislaam hab lanaa min azwaajinaa wa surriyaatinaa qurrata a'yun ni ko Sëriñ Tuubaa doon ñaane ba suriyatan tayyibatan tujaddidu yàlla na ko yàlla defal njaboot gi waxee ne njaboot goo xam dañu sax ci jëf-jëf ju baax kon suñu borom ñu ngi ko sant ci loolu ci xiiwal yooyu moo xam defal nañu ko ñaareelu cant bi mooy dañ koy jëmale ci ñi nga xam ne ñooy ñu yore daara ji tàmbale sëriñ Seexuna Mbàkke sëriñ Basiiru Saaxo ak mbooleem jàngalekat yi nga xam ne ñoo fi nekk nga xam ne guddi ak bëccëg muy tàng muy sedd muy taw muy naaj waxtu wu nekk ñu jël seen coono yëpp di ko def ngir xamal suñu doom yi alxuraanu karim te ku ne xam na ne alxuraanu karim yombut ah, jàngal alxuraanu karim yoon di wax na ko muy addis bu siiw xayrukum man taallama alqurana wa allamahu sëriñ Tuubaa it wax na ko wa afdalu nnaasi allati taallama qurana rabbihi wa xayran allama ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale kii liggéeyal alxuraan it sëriñ Tuubaa waxoon na ne wal kitaabu la si man kaana xaadimuhu sakaaloo im wal amaalu wa kon sëñ seexu naa ak mboolem ñu koy jàppale jàngalekat yi yàlla moo am seen pay yàlla na leen yàlla fayal lu kawe seen jortu fi dunia wal axira ñun parents di sant nañ leen gërëm nañ leen ndax lii ñun la waroon ñaa ñetteelu cant gi ñu jëmale ko ci ñi nga xam ne yàlla def na ñuy financé daara ji muy sëñ Abdoulahi Dia ak sëñ Moustapha ak soxna maama Anta ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ndax daara ji daara ji Alaaji Ibrahima la seeti Alaaji Ibrahima ñoo ko taxawaloon di ci góor góorlu ba am accès ci sëñ Abdoulaye ah ñu xam ne nag kuy jëf-jëf ju baax ndax koo xam ne dalaa yoral sa doom di la ko jàngal guddeeg bëccëg di ko jox muy lekk di ko jox muy naan faj sax ñu koy def wóotu ci kon kooku ñu ngi koy sant waaye seen jëf yooyu dañ koy delloo rek li suñ borom waxoon ne. wa aqribdullah man sa allasi yuqribdullah xardan xasanan fa yudaa'ifu la ad'aafan kasiira wallaahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turjaxuun bi aay bi wàccee yéexoor yi dañ ne inna allaaha faqiir yàlla day ñàkk na ginnaaw day leb suñ borom ne déedéet kuy lebal yàlla bor bu rafet jël sa alal di ko dépasse ci yoonu yàlla. ñu ñaan ñu dégloo ñu dégloo. dépasse ko ci yoonu yàlla yàlla dana la pulal say pay dafa la tuyaaba dul jeex. nee na booy sa alal ci yoonu yàlla defal ci yàlla tax rek bu joxool ku la ci sant ak ku la ci gërëm bul xool alal ji dana jeex wala du jeex ndax jamono ji boo joxee sa alal nanaa sa alal ji de boo muy tuut boo defee li doo denc dara boo muy tuut njaboot gi doo leen fi bàyyil dara wallaahu wallaahu yaqbidu wa yabsut yàlla mooy jox ku ko soob moo xañ ku ko soob ku ko neex mu joxal lu ne gàññi ku ko neex mu jox la lu tuuti wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allaahi wa kon ak ñi mu àndal nañu xam ne seen jëf ji foofu rek lay dellu lebal nañ ku am ku am pay muy suñ borom yàlla na leen yàlla fay lu kawe seen jot te suñ borom ku ko lebal dana la fay kon ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd ak wér-gu-yaram bàyyee seen borom ci ña ci wóotu gi ci wóotu te te ñoom ñoo xam ne ay doomi daara lañu dañoo waroon toog di jàngale yore ay daara waaye ba leen yàlla joxe wërsëg ñu xam ne war nañoo tax a taxawaay boo xam ne day yemook loolu kon ñun parents d'élèves yëpp suñ xol sedd na kontaan ci jëf ju rëy jooju nga xam ne sëriñ Abdoulaye ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi koy def ñu koy seede ci yàlla tax beneen bi des mooy sant euh, soññ suñu bopp ak soññ waajur ndongo yi ñu xam ne kat euh, daara ji suñ daara la bu fi suñu doom nekkee ak bu fi nekkut bu demoon ba suñu doom jàngatul ci daara ji daara ji suñu daara la am na ñoo xam ne bu seen doom noppee rek wala mokkal rek xamatuñ daara ja xamatuñ ñi leen doon jàngal loolu du ngor waaye kenn ku ne war nga di fi ñëw di nemmiku suñ seexu naa mi ak ñi mu àndal ñëpp di nembalu jàngalekat yi di xool donga yi nun fi tooge lépp loo xam du daara ji soxla wala guddeeg bëccëg nga di ca taxaw waaw waaye waaye bul ñëw sa soxla faju rek nga dem sa yoon nan xam daara suñ daara ji ba ilaa yow mi diini ñu xamee ko noonu fonk daara ji gën cee jàppaat euh, suñ kemt lay kàttan kàddu yooyu daal laa doon yëkkati ci turu euh, ñi nga xam ne ñoo de ñi fi seen doom di jànge ma wuutu leen ci nag xam naa lott naa lool ci jottali seen i kàddu waaye lu ci jub ñu sant ko suñu borom lu ci dëng ci man mii la assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa inni auuduha bika wa durriyataha min alsheytaani arrajim rabbi auudu bika min hamazati shayatin wa auudu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ci turu sëñ maam Omar Dia xalifa alhaaji Ibrahima Dia kàddu yi nag kàddu yi cant la ak ñaan ak soññee sëñ maam Omar lisaanu haalihi mi ngi wax ne mi ngi sant yàlla suñuy borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak borom gaawaan di wax ne kàddu yi li ci jiitu barab bu tedd bi nga xam ne ñi ngi fi jàng alxuraanul karim di fi teral ñi mokkal alxuraanul karim mi ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ak cheikh Mouhamadul Muntaqa sama borom duñ ko fa yàggal may ko wér ba li mu naa la liggéeyal maamam ji mu liggéey ko ñu ànd ko moom noonu lay ñaanale Cheikh Abou Mouhammad xalif Sëriñ Mouhamadou Mamoun yàlla yàggal ko fi te may ko wér ak mboolem jullit yi Daaru yépp ak mboolem jullit yépp fu waay maa nekk sëñ bi nee bu tedd bi nga xam ne ak Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké moo ko yëkkati woon joxe ko ak barab bee nga xam ne fa la ñuy xam-xam sëñ Amidou Mbacke yëkkati ko joxe ko mi ngi leen di ñaanal waaye noonu lay ñaanalaale alaaji Cheikh Dia ak alaaji Omar Dia ñoom ñi nga xam ne ñoo demoon ci Mouhamadou Roqaya sàkku ci moom mu jox njaboot ak njàggi barab bu liggéeyal yàlla ñoom ñépp ñi ngi ñaan yàlla fayal nu leen te xayal leen àjjana doon leen yërmande sëriñ bi nee na mi ngi ndokkeel waa daara ji tàmbalee ko ci ñi xam ne ñoom ñu def yàlla te ñu jiite ko sëñ Cheikhouna Mbacké ak Cheikh Maoul Bachir di ndokkeel jàngalekat yi ak dong yi mokkal ak yi ne ci yoon wi ak seen wayjur di ñaan yàlla alxuraanul karim ji yu xam ne mokkale ko fii yàlla def ci barke daf leen mag islaam te musal leen ci ay ndog ak gàllankoor waaye nee na noonu lay soññee wayjur yi niñ jàppalee xele yi bañ mokkal ci at yu niiw yii ñu jàppale leen bañ jàng xam-xam bu wér wér xam seen faat la xam seen diggante seeg borom xam seen diggante seen Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax xale yi li ci baree bari buñ leen jàngalee bañ mokkal dañ leen di bàyyi rek ñoom jàngiwaat tubaab duñ ci boole xam-xamu diine ca xam-xamu diine mooy lépp loo mën a xam ca xamoo ko day des sëñ bi nee na mi ngi yëkkati ak cant ak i ngërëm ak ñaan di ko teg ci loxo soxna maam Anta Dia mu àggaleel ko ci sëñ Abdoulaye Dia ak i waajuram ak i magam ak i ñoom ñi xam ne ñoom la yàlla baaxee ci coobareem ak mbër yërmandeem ba mu dénk leen wërsëg woo xam ne ba xiir leen ci rek ñu liggéey yàlla ci islam xiir leen tam ñu ko defee fii ci Daaru Salaam ñu ñaan yàlla nangu leen seen liggéey te yàggal ko ba ci ay setaat sëñ bi nee na bég na lool mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem cant gi itam nee na képp koo xam ne kii mas ngaa jaay ci daara ji ba suñ dontee ji dañu nga xam ne ñoo nekk ci waañ wi di togg kenn ku ci nekk li ngay def mënu fee ñàkk yàlla gis na la xam na la yàlla na la nangul